you jéem dara sottiwul bul découragé yàlla

tay ma ci seet ci ki nga ni mooy Amsa Amsa ma ngi leen di nuyu bu baakha a baax di lay fay Momo dila la dila di yow tamit di kontaan sa teewaay aussi dila dalal dila wax dalal ak fi mo ay ci ma dalal ak jamm loolu Amsa wax mais Amsa dafa melni da nga gul de wala dama laa fajoro <laughs> ah Amsa. non defaguma ko nag ndékkeeguma. ndékkeegul non non. <laughs> ah Amsa kon ndékkeegul gul motax mënul wax bu baax ayca Amsa Amsa fi moy fan. fi moy mbaw Grand mbaw ñu gën ko euh, quartier Ndoyeen waaw nga wàcc si Daara Serigne Babacar Sy. Daara Serigne Babacar Sy ah nee naa la maa ngi ci fi nga xam ne ni mooy Daara Serigne Babacar Sy fekk si ki nga xam ne si mooy sa am sa ñu ne soudeur métallique la sa lan nga dama lay bàyyi nga nuyoog ñi nga xam ne nii wax leen yow da sa métier lan la ba pare. waaw maa ngi nuyu Sénégal yëpp bàyyiwuma kenn di leen wax ne man la am Amsa Ndoye dëkk Grand Mbao waaw yor métier soudeur tubaab bi ko wax menuisier métallique. di si dóor di si sant yàlla di si di si nekk daal yàlla nga bu ma doonee xale ba léegi moom laa xam moom laa gën te moom laa jëfee def. am sa ban année nga dugg ci métier bi. métier bi de maa ngi si dugg 2009 2009 yaakaar naa non non non non maa ngi si dugg 2007. 2007 waaw 2007 laa si dugg jàng métier ba 2022 ma ber sama atelier. 2007 ba 2022 nga doog a ber atelier. doog a ber sama atelier waaw am sa ba ngay dugg ci métier bi danga ngaa dangoon da nga doon daw jàng école wala da nga nangu woon jàng wala da nga da nga bëggul woon jàng ba ñu ñëw dugal la ci métier. non non man jàng moom ma ko bëgg. mosoo bëgg jàng. non non kon yow defoo ban école yow. non non mosuma toog ban école. ah. mais da ngaa dëgër bopp dër xiis li ñuy wax ci lébu yi lébu yi dañoo dëgër bopp dër xiis moo tax am <laughs> sa sa papa xam ne yow mii kat bu la bàyyee leneen ngay doon moo tax mu teel laa dugal ci métier bi. dëgg la noonu la demee dafa dafa ma liggéeyloo ba sonn dafa ma jàngaloo ba sonn ma jàng moom aw ma temps nekk di dem géej bàyyi dem géej bi tamit dem maçon presque jaar naa géej jaar naa maçon ñaar yëpp macha allah léegi après laa toog jàng métier menuisier métallique jàngaale aluminium bi ñoom ñaar ñëpp mën naa leen macha allah après si laa toogee xalaat moo a métier ma waxaat sama patron sama patron bañ téema atelier téema téema foofu ba yenn temps bi mu taxu fi mu taxu arrangé ma ndax su ma nee dem sa biir 500 laay paas te xam nga ngay jàngi métier di paas sa biir 500 loolu boo ko doon am na fu mu xaj après si laa waxtaanee ak moom mu ne ma bu fekkee am nga matériel dama libbi sa atelier noonu si laa fi bàyyi lépp dem géej dajale sama xaalis ba yàlla suturaal ma am lu ma jëndee matériel jënd matériel ber sama atelier ba léegi. am sa ba nga duggee ci métier kan moo la jëkk a dugal ci métier d'abord. sama papa. Sabax mo dugal ci mo moom la si dugal. en 2007. 2007 wa bobu ñaatan nga am. bobu yaakaar na ma ngi 14 ans. 14 ans wa yow 14 ans nga commencé jang métier bi. commencé jang euh, métier bi. naka la nga nak nga ñu mëna waxé waxee que tay 14 ans nga jang ci métier tay da ngay jang métier nak la dem waaw bi may jang métier metti won na trop ci sama côté parents ci sama sama côté mon tamit ndax benn instant. dañ naa lu nekk lu nekk dañ naa ko si comme ni ma xëyee nii ndekkee gu ma nii ni ma xiifee nii. mais <laughs> am sa boo jàng métier da ngay nangoo daj lu ne. waaw waaw waaw waaw xaar naa ko fa tamit xaar naa ko fa <laughs> dañ naa lu ne ndax ki ma doon jàngal métier moom laagaloo woon si si làmmiñ quoi muuma la xam nga rek ñoom seen dañuy naqari deret lu nekk daj naa ko fa lu ne lu ne mais tey yàlla suturaal na maa ngi fay ko maa ngi fay ko liñ naan loo doonul taalibeem doo ma sa doon sëriñam loolu wax boobu gëm naa ko te xaar naa ko fa daal te instant yi macha allah sant naa yàlla bu wër daj naa lu ne dox naa dëkk ak dëkk daw naa dëkk ak dëkk yenu naa affaire dëkk ak dëkk lu ne lu ne def naa ko da daan amee chantier fii ba yëmbal mbaaw ba yëmbal dama ko doon yenu ay buntu di ko yóbbu foofu matériel dama ko daan jëli jee yëmbal ba mbaaw lu ne lu ne daj naa ko si métier mais sant yàlla saa yu ma xaadee ba daw paa bi ne ma noonu demaatal day ñëw dal sama kaw génnal na ma sax jaasi pour ma liggéey. ci métier bi. billaahi barke alxuraan daa xaw ma génn <laughs> waaye daxawal am sa yow sa papa jaasi la la dàq jee ak si métier bi. wallaahi billaahi laazim mu ngi nee toog dama bàyyi ma fenn. xëy <laughs> naa sama bëti arka sama bëti di metti fonk ko cur. mu ñëw dama ñëw rek ma xis sama bëti xool ko pour pour wan kenn ka mënuma liggéey gis nga samay bët nii mel mu ne ma sama yoon nekkul jógal nga dem. noonu laa jógee dem ësale toog naaj bi dima sonal lu ne daj naa ko lu ne lu ne mais lépp tey si tey meroo ma ko si ndax dafa ma liggéeyal quoi te daf ma doon ne lu métti góor lay daal te loolu tey maa ngi nii macha allah damay xëy yenn saay fii am lu may metti mais teewul damay continuer maa ngi nii damaa defoon soog ba amee liggéey boo xoolee ni may toogee ak ni may jógee nga xam ne nekkuma à 100 pour cent mm. mais lépp lan moo ma ko may ko xaarloo mm. si métier mi te tamit bàyyi ma woon noonu nooyalu ma moom daal mm. daf ma dëgëral ba ma dëgër këc macha allah mais sant yi réccu ma si daal kontaan naa si euh, ko gërëm ko ndax chaque jour day ñëw huit lay ñëw fii ba kara sama heure wàcc di jot topp na moom sos man ak moom yàgg nañ bi ma doonee xale dama daan téye si loxoom ñu naan ànd di dem géej moom géej la daan fréquenté affaire yooyu rëcciwu daal li ma doon juddoo si loxoom wax dëgg yàlla am sa euh, ñu gis ne sa papa moo la dugal ci métier waaye tamit euh, def na la lu nekk pour nga jàng métier bi yow ba nga demee ba jël décision beru euh, ber sa atelier bopp moment boobu noonu naka la la digg waa ñu ma bëggee beru métti woon na trop ndax gisuma woon kenn ku ma jàppale te moom loxoom jotul ginnaaw ndax en moom la da doon dem géej dafa dem ba si biir bàyyi dem géej xam nga mënatul bëti defan xari après bi ma bëggee biir atelier waxtaan naa ak moom ne ko papa man kat damaa bëggoon beru affaire yooyu jàppale si kër gi ni xam nga rek situation yi ni mu mu ne ma pour nga beru de du yomb ma ne la moo tax mu ne ma amoo matériel bi te kan moo la koy jëndal affaire yooyu ma ne léegi bàyyil ma dem géej comme que commencé woon naa nekk di dem géej ba mu mën si dara bàyyil ma commencé dem géej mu xaw a bañ ne ma noonu góorgóorlu yàlla baax na toogal si kaw jor gi ndax samay mag yëpp ay mool lañ ñenn ñay maçon lañ bëgguma ma ne ko amul problème léegi bàyyil ma jéngu rek dem géej di ànd yaay di si dem géej di dem xam nga géej moom boo demee teer rek da am sa xaalis saa yu lii la ñuy loolu laa nekk di dajale moom moom ko dajale li ma ko dajale ba mu mat matériel ma ne ko mën na jënd lii ak lii ak lii jour bi muy tijji bi def mbaar mi mbaar mi daanaka moom moo ko defar moom moo moom sa waaw moom moo ma doon jàppale te boo gisee tànk yi dafa am problème mais moo may jàppale si lépp taxawal fii defal nii dugal fii génn fii même toogee si mbaar mi nii benn zeng yëngatu sax mënuma am sa utal xeer nga ko wala nga takk bëggul dara lu ma metti metti woon na trop mais mom sant naa ko ci gërëm na ko ci ndax tay tay bu nexé mom bu nexé mom ndax sama yaay mom dama ko jëlal <laughs> mom moy sama àdduna <laughs> mais am sa euh, gis nañu li nga xamné ni mom nga débuté euh, mu doon lo nga xamné ni lu metti la ah li nga débuté mu metti torop torop torop mais tay damay damay laccé am sa tay premier jour bi nga xamné ni samp nañu mbaar pour né am sa mom mom place bi la la def. def na ma lu reuy lu garaaw te fatel na ma lu bëri tamit ci sama patron. te premier jour bi ma sampee mbaar man ak benn booy ñoo fi noonu muy booy bàyyi sama doom la mhm. sama doomu mag la quoi bi mu doonee xale ma ko jox mhm. moom rek laa fi nekkoon loolu affaire yi métti trop te bi may beru yàlla dafa ma suturaal am sama benn ndijaay bu ma jox chantier mhm. dama chantier boo xam ne nii chantier ëppoon na ma doole trop ak li may doog a beru mu doon lu metti si man ma ne noo garaaw naa gérer rek heureusement sama ndijaay boobu ma euh, joxuma ba nga xam ne liggéey moom si la war a pare ma nekk di liggéey ma ak booy bi. laa bàyyi nga liggéey ak sa xel. voilà daf ma bàyyi ma liggéey ak sama xel te booy bi boobu lay doog a jour boobu lay doog a taxaw si atelier na day liggéey si dër. ma nekk lu ma ko def loo mu def lu ma ko indi loo mu indi lépp man la lépp man la. ñu nekk si daal ba yàlla suturaal ma liggéey bi pare macha allah mais contentement bi ma am instant bi may doog euh, bi ma xëyee mercredi boobu noonu pour toog sama atelier def na lu rëy daal da ngaa jooy wala da ngaa reetaan wala am na contentement yoo xam ne ni kii da koy jooy kii da koy ree yow noonu def. waaw dama dama nekk nag ngoon bi yëpp dama ko reetaan <laughs> kon jooyoo. jooy ma non jooy mais am sa gis nañu li nga xam ne ni tamit mooy euh, euh, plaisir bi nga xam ne ni am nga ko ci métier bi mais am sa tey bu ñu nee métier métallique soudeur métallique yow est-ce que xam nga lan mooy soudeur métallique. soudeur métallique waaw daanaka xam naa si mhm. waaw. am naa tuuti ndax métal yi moom dafa doy waar. Euh, mën na la jural lu ne mën na la indi lu ne. te mën na mën nga si am lu ne. loo foogul sax mën nga ko si am. ndax fii nii ku nekk amee seet ku nekk seet dafa am ñoo xam ne ñëw sax sama kàllaama ak seen kàllaama duñ mën a dégg mais si waar bi la wax si dóor dañuy làkk français anglais am na chinois bu fi ñëwoon chinois waaw lu mu doon làkk <laughs> chinois doon <laughs> làkk am nga client français ñu ne waaw am nga client anglais ñu ne waaw mais chinois moom lan la doon làkk réew ak na nga doon waxee ak moom sama rakk laa wooy sama rakk sa rakk daa dégg chinois waaw bu nekkoon kookan la bu nekk restaurant Aram Doy for na si tuuti rek ndax keroog jour wax na ba comprendre mais ciment bi mu dee ba léegi ñëwaatul. <laughs> aram doo làkk ko sinois <laughs> aram doo est-ce que jaawlewul lébu yeeg sinois yi. <laughs> ma ko ma ne ko waa te duñ si bàyyi xel. loolu la demee mais daal sant yàlla daal. sant yàlla ndax fii moom ku ne ngay gis te lu ne ngay dégg tamit teg si. dégg naa fi lu neex dégg naa fi loo xam ne metti na ma affaire mais lépp rek sant yàlla bi may jàng métier la gënoon a metti. dama naan def dara ba sama patron dama li nga def dara baaxu si. mais du tere day orne yóbbul borom. Mm-hmm. mais lépp dama doon kii rek dafa doon indiwaat quoi. xam nga rek defar dara pare ñu na la baax nga nekk fa di ndam fekk na li nga defar dara baaxu am na lu gëm tay am sa euh, lan nga yan jafe-jafe nga nga am ci li nga xam ni moy sa métier bi ba nga ci commencé jafe-jafe bi de rek la la japp moy fi ma nekk dafa xaw ruxi ndax nekkuma ci kaw tali bi am na atelier yu nekk ci kaw tali bi mais tamit ñeewuma leen ndax sama papa moo may gëmal sa ben wax bo nekkon sa bi nek di liggéey sax lo wara am da la fay fekk benn bi mooy yenn saa yi damay defar sama affaire ba pare dugal statut nit envoyé ma vocal ci na ma lii liggéeyoo ko bàyyil modèle jàmbur yi ngay jël di photo di ko dugal statut ak affaire yi. waaw loolu laa leen jàppee mais man ki ma siy liggéey bi xam na ak ñi nga xam ne ñoo may jox seen xaalis bu ma liggéey leen xam nañ ak ñi nga ki ma xam ne moo ma jàngal métier. Mhm. am naa benn jafe-jafe nag mooy lan daa am benn patron boo xam ne jaar naa si atelier def benn deux ans kooku day wër di wax ne moo ma jàngal te yaakaar naa deux ans si jàng métier di yóbbu atelier. dèjà est dafa doon def renforcement de capacité. waaw ah, te tamit ba ñoon toog ndax paa bi dama doon liggéey maçon ne ma maçon bi neexuma ma ne ko kon garaawul nekk fii nekk seeti leen bu ma fa nekkee am na fa nekkee temps en temps dinaa mën may liggéeyanti ma nekk fa deux ans maag samay morom jógee fa après si ay yu ndaw depuis may ba léegi nag samay clients yi lay topp di dem booy bi maa ko jàngal métier booy bi maa ko jàngal métier dafa yàkkamti daa teel a béroog genre affaire yooyu mais yàqalu ma dara moom mu may defaral ki ma jàngal métier Moussa Diop la tudd ak Moussa Diop waaw Moussa Diop ak Modou Ndong ñoo fi doone woon kii menuisier aluminium la kii menuisier métallique waaw ñoom ñaar ñoon ñoo ma jàngal ñaar yi ma yor yëpp keneen ku ku ma jaaroon dama faa jaaroon pour bañ a toggaale ak yooyu noonu ndax bëgguma toog quoi waaw noonu la demee tey sa premier client bi nga xam ni am nga ko ba nga ubbee atelier bi la la def sama premier client dañoo am problème ci da mu jox ma cent li si des mu ne te mais loolu garaawul sama papa la moom ko sañ a def. ah ok jafe-jafe boobu noonu nga am si ci ba nga ubbee place bi mu ñëw defal la commande demande la commande nga defar commande ne ko temps la mu ne la temps laa lay fay ba pare ne jox la jox la xaaj bi ne jox naa la beneen bi. jox na li jox na ma li si des. mais loolu est-ce que amul euh, ba leçon boo ci mën a jàng. waaw jàngal na ma lu bëri tax na léegi lu ma wax dama koy bind lu ma def dama koy bind te ku may waxal soo xaalis tamit boo ma joxee dama la koy répéter ñetti yoon maanaam. am nga am nga secrétaire. am naa secrétaire waaw. ah waaw ah, waaw. kan la. Asou la tudd. Asou waaw mooy sa secrétaire. mooy sama secrétaire jamono ji ah waaw mais am sa est-ce tey euh, métier euh, soudeur métallique kese ngay def wala dafa am leneen leneen li nga xam ne ni moom ko yaa ngi koy def en dehors de ça. nekk nii moom rek laa yor menuisier métallique. métallique naa ko boole aluminium bi mais sama grand palaay moo tax. ñu ñaar ñoo jàkkaarloo te du yoon ñaari atelier yi jàkkaarloo kii yor li kii yor li waaw su bëgg naa ko tijji nag beneen beneen côté mais maa ngi si loolu yàlla yàlla yàlla na ma si yàlla jàppale suturaal ma si rek waaw mais ma yàlla yem si bii kase kase kase waaw am sa est-ce que est-ce tey dinañ la jox ay marché yi nga xam ne ni tey danga koy defar pour kër parce que ku gis li ngay defar xam ne wàllum domaine maison la wala domaine bi nga xam ne nii tey euh, lépp li nga xam ne ëmb na ci kër danga koy defar est-ce que yow ay escalier ngay defar wala ay ay balcon ngay defar wala dangay defaraale li nga xam ne nii tey mooy salon. waaw damay defar ay salon euh, rampe escalier balkon porte ay taabul à manger ay décoration yu doy waar dama koy defar si métier bi. ay lal sax dama ko lal. uuse ko nice machallah te manax Ousmane mi ah daaw jour ay waylam lal metali lal metali wa mo nek sama nek sax. waaw ah. loolu kay xam naa moom sama mag ju jigen di lay wolé Aji ndjay nako ko kaay kaay ma defaral lal parce que Aji ndjay xamna mom lal bo arrangé wuko ko. <laughs> mbaago <laughs> waaw lal feeri moom macha allah doo ne am nañu ci man lu bëri. wa man man xamna ci si la si laay tëdd maa sama soxna. ya mom nga moom nga sa nek mom la defar sama nek te bo gisee bu la lay wàññi la do ko jël. Ah. waaw. tarka <laughs> ah am sa après dinañ dem nga xoon ma loolu moo xool ko mais am sa tey nga nekk jeune euh, euh, âge bi nga am tey lan ngay conseiller ñi nga xam ne nii ñu ngi toog di seetaan li nga xam ne ni mooy RMB ah, di seetaan émission bi nga xam ne mooy gëm sa métier tey lan leen di conseiller en tant que jeune métier bi nga xam nii tey ba nga ci duggee ak léegi yàggul noonu mais nga am ci lii yëpp waaw ñooñu di leen conseiller rek de ne maanaam métier mooy lépp te yaakaar naa boo amee métier mooy am nga lépp si àdduna tey tey man mi nekk si métier mi nii am na loo xam ne ni maanaam ñàkkoon naa ko tey métier may na ma ko. muy cër ak personnalité maanaam lu mu mënti doon si àdduna. ñeewu ma kenn te dew ma fëgg buntu kër kenn di ko laaj xaalis wala leneen ak leneen yàlla suturaal na ma si dem naa si bi may ibbi atelier boo amoon jabar mais yàlla dogal na bi may ibbi atelier bi un an si laa si laa takk jabar yàlla may na ma si doom macha allah. ah man man man man métier métier léegi yow métier am na valeur da yow bii ki ba jàll jël ba nee na ma métier si la takk jabar yow tamit nga ne ma métier ci nga takk jabar ba yàlla def nga am si tuut yaa gis métier bi moo demee noonu métier bi moo demee noonu loo si bëgg da ko siy am si kaw nga gëm ko bëgg ko tamit man bañ naa koo xam ne ni maanaam dafay toog di xaar maanaam sañse maanaam xëy toog di xaar yaay ak papa quoi tey tey pour man boo doonee ndaw rek lan nga war a njëkk def xool métier bi nga xam ne moom nga bëgg dëgg nga dem dugg si dóor si waar maanaam tarbiwu ko quoi pour ëllëg mën la jural lu ne mais tey tey bu fekkee da nga bëgg xëy papa jox ma yaay jox ma affaire yooyu dugg génne jaar fii say moroom fu ñu toog nga dem toog fa fu ñu dugg nga bëgg si dugg te amoo métier pour man da ngay sonn te loolu mën na la jula jël alalu jàmbur ak yooyu noonu tey tey man sant naa yàlla bu wér ndax euh, sama papa bàyyi ma ma toog sama yaay bàyyi ma ma toog toloon lañ ma trop pour ma jàngi sama métier bi té ma ko jàngee ba ni ma sha allah dem naa ba am sama télé am naa si lépp lu ma bëgg am té fi mu nekk nii rek su ma la waxee doo gën dem naa ba am naa si terrain si métier même ko nekk. terrain barke alxuraan. ah kon sant yàlla. waaw ah, gis nga kon tey tey loolu man su ma fekkoon damaa xëy di toog di taxawaalu rek du ma ko am. wala mu xëy su ma liggéeyee lii ginnaaw suba lii ginnaawaat suba lii du ma ko am dama fixé benn affaire téye ko ne lii laa bëgg. moo xam ne daal ñoom bi laa bëgg mën na daal ñoom moo gën tubaab bi mën nga ko liggéey sañ seex sa door sax mais man lii laa bëgg lii laa gëm moo tax si laa nekk ba yàlla may ma si li ma war a may lépp maa ngi sant yàlla bu wér technicien yaa ngi dund ndeysaan léegi am sa dama lay bàyyi nga nga tàggatoo ñi nga xam ne ni tey ñoo lay seetaan parce que temps bi xoj nañu te it euh, kuñ bu ñu bëggee dévaluer li nga xam ne ni mooy ci métier bi dafa yaatu métier bi dafa yaatu loo ci bëgg a wax xajul fii ba suba dama lay bàyyi nga wax li nga xam ne ni tey mooy moom ngay tàggatoo ak ñi nga xam ne ñoo lay seetaan waaw dëgg la kontaan naa trop moomu eh, bàyyi fi kaay tànn naa si yow trop bàyyi fi kaay yow yow yow yow tamit élément la kaay waaw moom mooy deuxième patron bi moom moo sañceetile bi daana mm-hmm. waaw maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant mu mu saf Moustapha Moustapha Ngor maa ngi koy sant bu baax ak samay mag ñoom samay grand frère quoi sama papa sama yaay sama yaay amoo fayam sama papa amoo fayam ñoom ñu maa ngi sant di leen gërëm di la gërëm yow moom mënoon nga ma jéggi mënoon nga dem seeti ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mooy loolu waaw. yaa ngi wax yaa ngi may wan ne sama nitu démb affaire yooyu noonu te ñoo bokk Serigne Babacar xam nga mu ngi noonu daal yàlla baax na. da may siiwal waaw gaa gis. <laughs> waaw Bayesu Bayesu yow lan laa lay woowee ngay tiitaru man lébu yi la ma tax ñu bëgg tiitaru yow Bayesu kaay man xam naa ne da ngay liggéey te xam naa li def mën nga ko Bayesu tey man sa patron laa sa moo la jàngal métier te yaa ngi gis ne métier bi nga xam ne nii te yaa ngi koy def ah xale yu ndaw baasu xoolal caméra bi xoolal jàkkaaroo caméra bi. xoolal caméra <laughs> ban ba ngay jàng métier ñaataat nga amoon. 8 ans 8 ba nga jàng métier moom nga amoon ba nga ñëwee ñu ne la soudeur métallique ngay def la nga doon la nga la nga la nga njëkk a xalaat. teral ma yaay ak ma papa. teral nee teral ma yaay ak ma papa. ba da nga siggi na nga xool caméra bi nga wax ak nit ñi Baye Assou Baye léegi euh, ba nga xamee ne mën nga li nga xam ne nii mooy métier bi à âge bi nga am ni tey yow ban ban yëg nga ci am ah. ban yëg-yëg nga am ci métier bi nga xam ne léegi mën nga ko Baye Ousou dafa ragal caméra bi ay ca mbokk yi lii lañ amoon comme li nga xam ne ni mooy numéro gëm sa métier nee naa la fii nga xam ne ni mooy ndóoyéen ñëw seet si ki nga xam ne ni mooy Amsa Amsa pareeguma ak yow de kaay ma laaj la li nga xam ne ni tey képp ki nga xam ne bëgg na def commande quel que soit nga nekk extérieur wala nga nekk fii nga xam mooy ci réew mi lan nga a joxe boo xam ne ni tey am na WhatsApp wala nit mën na la cee woo jot la pour def li nga xam ne ni mooy commande waaw sama numéro laay joxe mooy bi ma yàgg yor mooy 77 786 06 50 77 786 06 50. place bi nu mu tudd. place bi mooy Daara Serigne Babacar Sy. Daara Serigne Babacar waaw. ayca mi ngi noonu ah daari Serigne Babacar Sy lañ ñëwoon tey seet si ki nga xam ne ni mooy Amsa nee naa leen ñi nga xam ne yéenay seetaan def leen ni moom damay ñëw seen i ñu waxtaane li nga xam ne mooy métier waaye bàyyiwuma ambulant bàyyiwuma ki nga xam ne ni tey dafay jaay ay gerte caaf bàyyiwuma ki nga xam dafay jaay si déem bàyyiwuma kenn ñëpp laay seet si ndax métier bi ñëpp a ko bokk bu ñu nee métier rek dafa ëmb lépp li laa leen andi loon comme numéro ah di gërëm ki bu baax a baax ki nga xam ne ni mooy Mame Thierno moo nekkoon ci caméra bi di gërëm ki nga xam ne ni mooy Asi ak sama DG waaye tey lii lañ amoon comme numéro di leen jox dig daje ba beneen ak beneen invité ak beneen métier